El Hadj Malick Ndiaye leen ak jàmm sommet bi am ca Malte te jaglelee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu migration ak toxal bi nga xam ne toxal nañ ko ñoom Imaam a fës ci yéene kaay génn nga xam ne kat delsi na ci ndaje mi nga xam loo xam ne jëm na ci wàllu migration maanaam ñi ko fii di dem fële nga xam ne moo xamal ba tey ne kat loolu moo gën a fës ci ndaje mi nga xam ne amoon na démb fële ca Malte lu toll ci rek ci juróom fukki njiitu réew yoo xam ne jógee ci Afrique ak tamit Europe de l'Est jeunesse ñu waxtaan ni nag la ñuy def ba saafara loolu Macky sàll sax mi nga xam moom mu jiite réewum Sénégal wax na ne kat ñëwuñu fii rek ngir di saraxu moom Macky Sall mu ngi xamal ba tey ne kat fii ci biir Afrique am na dëkk yoo xam nga seen kéemtulaay kàttan ngir rek fexe ba dëj seen i ndaw fii nga xam moom moo nekk ci seen ay réew ak tamit ay palang yoo xam def nañ ko yu am solo

fële ca ndar nee nañ kat ñoom loolu yëguñu ko te tamit dafa indi ay gàllankoor ci li nga xam ne rek moom lañ ko war a layalee ñu def ba tey ci wàllu yoon ak tamit mbirum Aïda Patra mi nga xam ne tey jii dinañ ko yóbbu ci kanam procureur bi loolu nag moo gën a fës ci yéene kaay woon nag li nga xam ne moo nekk benn juin bu yàmba enquête ko ñu ko doon bàyyi xel bu a baax xamul woon loolu moo tax ñu teg ko loxo moo nekk juin yàmba tey jii sax lañ ko yóbbu ci kanam procureur bi ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak tamit bis bu njagleelee li nga xam ne rek moom feebaru jabet maanaam feebaru sukkar si loolu nag ñu war ko màggal suba fukki fan ak ñeent ci weeru novembre association sénégalaise de soutien aux diabétiques maanaam kuréel gi jóg di topp toog di dimbali ñëpp ñoo xam ne am nañ feebaru sukkar bi nag amaloon na démb li nga xam ne moo nekk lancement campagne bi ñu jóg taxaw xeex ak lu jëm ci wàllu jabet loolu nag ñu amoon ca mairie bu Parcelles Assainies loolu nag yéen i cabinet populaire moo ñu ko xamal ren ji nag liñ ci war a waxtaane bokk na ci kat lekk gu sell nekk na loo xam ne wareef la ngir xeex ak li nga xam ne moo nekk feebar boobu di feebaru suukar bi le populaire tamit taataan ay kàddu koo xam ne kat dafa am jabet bi mu amee ñaari at ci wàllu tàggat yaram ak tamit double confrontation diggante Madagascar ak Sénégal ñu jàpp ko le treize et les dix sept de ce mois jëm nag éliminatoire mondial deux mille dix huit gaynde nag ña nga fële ca capitale malgache depuis démb tey ji lañ tàggat seen bopp bu onze heures ci suba si loolu nag ci waxtu nga xam ne kat ci la am suba yéene kaay bi de de sport dañu xam ne kat match bu métti lay doon Aliou Cissé moom wax ci yéene kaay bi de stade ne kat moom amul benn njàqare ci li nga xam ne rek moom mooy stade ba tey di ñu xamal ne kii di Sadio Mané nag wér na moom kat suba dina mën a football ci jogante bi ñu des ba tey ak Sadio Mané mi nga xam ne kat moom bi nga xam ne a ràññeeku loolu nag ñaari yoon ngi ni ñu koy def kii kat moom moo gën a ràññeeku fii ci biir Sénégal gayndey basket yi nga xam ne ñu jëloon raay gi ci Afro Basket atum 2015 ñoom nag nekk ñi gën a ràññeeku ci wàllu tàggat yaram Bombardier ñu fal mbër mi nga xam ne kat moom moo gën a fës loolu nag xamal ba tey ANPS di banqaas bi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar yi ngi ci wàllu tàggat yaram dina neexal nag ñëpp ñoo xam ne am nañu raaye loolu nag fukki fan ak benn ci weeru décembre ren gi nag dañ ko kii di Pape Diouf mi nekkoon président bu olympique bu Marseille ak tamit El Hadji Malick Sy Souris jàngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi Sénécar Tour des sociétés